jërë ngeen jëf mbokku internet yi yéen ñu ñu seetaan suñu site bi di firi info point com tey nag ñu àggal leen ci campagne bi nga xamante ni mooy coalition Yewwi ak Wallu ñoom nag sanu nji di ñoo fa daal di ñëw kii nag di Ousmane Sonko daal di koy jiite waaye nag ànd ak ñi nga xamante ni mooy waa coalition bi ñaari coalition yëpp daal di ñëw buñ fi ñëwee fekk ni fa san leader kenn ki nag di honorable député monsieur El Hadji Gueye waaye kenn ki di honorable député madame Fatoumata Diallo mbooloo mi fu nekk nag kenn xamul nu toll pour ki nga xamante ni moo fi daal di ñëw di Ousmane Sonko moom njiital Pastef bi daal daal dina fi ñëw ànd ak képp ki nga xamante ni yaa ngi nekk si coalition Yewwi rawatina coalition bi nga xamante ni mooy coalition bu wàllu ñoom ñëpp te daal dinañ ñëw kon nag mu nekk ñaari coalition yi nga xamante ni am nañ doole ngir ñëw dooleel ñi nga xamante ni mooy sunu leader yi ngir askan bi daal di leen jàppale si élection yi ñu war a jëm loolu nag lu ñu koy jot a xamal mooy suñu site di Firi Info Kamani, Bode Kodeye, Sefai Neuna, Uau, uau, uau, uau. Sefai Neuna, uau, uau, uau, uau. Merci, merci. Menino, pode dar as bebidas. jël nuyu bi di ko teg ci président Khalifa Sall di nuyu ñëpp ñoo xam ne bokk na ci délégation bi di wax ne am nañ mbégte lool bi ñu recevoir fii ci Koungheul département Koungheul nag nekk département boo xam ne élection yi passé dafa nekkoon ci loxoy tas yaakaar waaye dañ koy jël jox ko yeeyu askan wi ndax wa département Koungheul sonn nañu ñu leen di imposer des leaders yoo xam ne am nañu plus de quatre-vingt-trois ans. mbokki Koungheul asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di wax suñu mbégte suñu mbégte ak mbégte mboolem seen conférence des leaders ki teew fii tey. laata may door sama kàddu di ngeen ma may rek ma jaale waa Koungheul yépp waaye di jaale waa Saly Escale di jaale waa parti bi waa coalition bi ndax xam ngeen ñaari semaine ci gannaaw ki nga xam ne moo ne woon suñu coordinateur fële ci Saly Escale ñu koy wax Moussa Top yàlla da ko moom ñuy ñaan yàlla yërëm ko jéggal ko xaare ko àjjana yaatal bàmmeelam oyofal suuf ci kawam di ñaan yàlla li mu gëmoon moom ba tax mu engagé wu ñu ne mu daj ko ci te ñun ñi des ci àdduna ñoo ci nekk fi ne nii yàlla na ko yàlla mottali ci jàmm te muy njëriñu senegal di njëriñu Afrique mbokki Koungheul Legi sen candidat dafa lim bi mu limee wax ay axes yu bari yo xamné problème mu taliba boko déggé day melni bo gennon tay ci talib yi nga xamné mom lañu nek nga xamné prolongement route nationale la defe naa bëgg dugg ci bir kungel ci ay rang-rang doon ba ay gëf nga jëm mu daal di wax ku wax Koungheul nag wax mbay ak càmm waaye wax na tey mbirum engrais kilo engrais ñaata lay jar 16000 francs kilo engrais benn kilo sac bi 25000 sac bi 25000 boo ko andee ci kilo bi dina nekk entre 300 ak 500. waaye laata may sori damay wax ni su ma ñëwee Koungheul damaa ñëw sama dëkk ndax fii dama fee bëri ay mbokk euh, soxna Aïda Sow mi taxaw fii rakk la ci sama yaay muy waa Koungheul dëkk fii rakk la ci sama yaay bu may nekk gone bu ndaw daanaka li may nekk xale yépp moom moo ma doon boot moom mii te waa Koungheul la ma delloo ko njukkal tey ndax ki la daan ki nga xam ne sa wayjur bu jigéen da daan xëy dem liggéey bàyyi ko ci kër gi moom mu lay boot di la jox loo lekk di changer say couches kooku mënoo koo fay te mi ngi nii waa Koungheul la mën naa ne xaaju Koungheul suñ ko duggoon samay mbokk la loolu nag mooy Ousmane Sonko yàllaa ma ko may man fu ma taxaw ci Sénégal rek fu ma ci Sénégal rek fa am ci mbokk moo ëpp li fa newul sama mbokk waaye loolu mooy mbokk deret waaye ñëpp samay mbokk lañ ndax ku bëgg a jiite réew réew ma doo fa am xàjj ak seen moo tax loolu mu wax léegi Sénégal yëpp xam nañ ni waxu caaxaan la ku bëgg a jiite am réew lëmm

tay jafé jafé yi baykat di dund ñoom ak yalla ñoo ko xam am semence bu baax jafé na boko gisé dina cher boy bay do am engrais bo paré bay am jafé jafé jaay kon bay mi do priorité ci Macky Sall da gis ngeen nag réew mu lu mbay ci aduna ak rew mo meuna a doon réew ci dool ngay dëkk xam nga lutax lo bayul sa dëkk da nga ko jéggaani ci àdduna te fa nga koy jëlee lu doon jar fukk nañ la ko jaay ñaar fukk moo tax Sénégal ba fii ñu toll nii Sénégal day importer ceeb bu ñu nekk ceeb Sénégal day importer farine day importer maïs ba fii ñu toll nii engrais bi ñu koy produire fii Mboro waaye li ñuy produire day génn réew mi ñu ñu dem di jëntuwaat lu ñu importer engrais pour andi ci Sénégal kon. loolu lépp li ko andi mooy ñàkk xam-xam ak ñàkk gis-gis réew xam-xam a koy doxal waaye xam-xam bi dafa am lu ko jiitu mooy bëgg réew mi ba mu jaral la lu ne jiital intérêt réew mi ci intérêt leneen commencé ko sa intérêt bopp yow réew kenn du ko soxla pour am ay milliards ku bëgg milliards da ngay dem créer ay société def li suñu commerçant yu baax yi di def li suñu ouvrier di def daal ñàkk liggéey yalla ubbi la wërsëg waye fonction publique ak bu mu munti doon président la république salaire la salaire motax ñun dañu wax ni li ngeen di dégg ñu naan caisse noire xam ngeen caisse noire caisse noire suñu programme la di suñu programme su dé ñun ñu am majorité assemblée caisse noire nga jël 17 milliards voter ko ben nit né ko nak kenn du la contrôler ya ko mom bu la neexee dugalal ci benn néeg sotti pétrole taal kenn du ci wax dara nga def ko ci ay sac di wër Sénégal di jënd nit ñi di joxe gauche pour ñu woteel la wala di jënd ay journaliste pour ñu waxal la ñun dañu ne suñu jëlee réew mi waaye balaa loolu bu ngeen joxee majorité assemblée caisse noire dootul am Sénégal. kon bu ku dugg ci urne bul laal beneen bulletin bu dul bu weex bi te sell rafet te nag moo gën a neex xàmmee ci bulletin yi xam ngeen ndax lan xam ngeen Macky Sall dafa ragal Ousmane Sonko ba ragal photo Ousmane Sonko tax moo tax mu ne moo tax mu ne sama photo bi dama ne nee na ma baamu ko xam nga ragal nit benn mbir la waaye ragal nit ba ragal na taalam maa ngi koy gis léegi nee na man sama natal, du feeñ ci bulletin bi loolu bi mu koy def jàpp na ni daf ñoo nar a yàqal waaye man ak sama kanam bu ñaaw gii ma bañ a ci bulletin bi sax moo gën moo ku dugg ci urne bi surtout suñu mag ñi nga xam ne léeg dina dinañu am problème pour gis juróom ñetti bulletin la juróom ñaari am na photo am na nataal juróom ñetteel bi amul photo xam nga loolu yomb na demal tànn bi amul photo te weex tànn leer nañ bul jël bul jël mbóot bi mbóot bi mbóot bi xam nga am na boo xam ne couleur am ak couleur mbóot ñoo bokk marron beige weex dàll bi rafet Sel, moom ngay jël dugal ci bulletin bi buñ ko defee le 31 bu ko ñëpp defee ni ñu ko war a defee le 31 à minuit Macky Sall pare na ci Sénégal Sénégal pare ci Macky Sall kon ñi ngi nuyu kilifa diine yi nekk ci euh, département Koungheul yëpp ndax Koungheul ñëpp xam nañ ni dëkku diine la di beral suñu nuyoo nag suñu. Baye nga xam ne mooy Hamadi Seck bi nga xam ne mooy Xudan ñu koy nuyu moom ak suñu mbokk yi suñu parents yi nga xam ne ñoo nekk Dimiska waaye yemu ci ñooñu bépp foyer religieux bu nekk fii ci département Koungheul ñu ngi leen di nuyu di leen ziar waa Koungheul kontaan nañ suñu sañoon toog di waxtaan ba ëllëg waaye ñu war a dem ba Tambacounda. kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox rek daje ci lu yàggul trop incha allah.